ginnaaw bi nga xamee ne résultats yi génn na te li mu joxe yéen ñépp gis ngeen ko je voulais profiter de cette occasion pour remercier leen yéen waa Gëm sa bopp bëggoon naa ku nekk ma jaar ci turam ndax engagement bi ngeen am ndax abnégation bi ngeen am pas-pas gi ngeen wane ànd gi ngeen ànd ak Gëm sa bopp ànd ko ak Bougane géey ci loo xam ne tiitu leen ci jàddu leen ci rafu leen ci c'est le moment de vous féliciter vous avez été tous extraordinaires yéen ñëpp ci nekk gëm sa bopp góor jigéen mag ak ndaw da ngeen di liggéey ba quatre heures du matin vous avez bravé le vent le froid la faim la chaleur lépp parce que tout simplement da ngeen bugg Sénégal da ngeen bugg Sénégal jëm ci kanam kon man Bougane Gueye yéen waa gëm sa bopp man maan maa leen war a sant maa leen war a delloo njukkal parce que da ngeen bàyyi seen jot bàyyi seen temps bàyyi seen liggéey bàyyi seen i njaboot ànd ak man ci liggéey bi ñu doon def ngir Sénégal liggéey boobu nag man li ma intéressé woon mooy projet bi ñu amoon ci Sénégal ñu doxal ko waaye malheureusement on a vu que li ëpp ci société bi li ëpp ci Sénégal leneen la ñu choisir c'est ça également la démocratie il faut ñu accepter ko li am solo mooy ñun. liggéey ba ñu doon def muy le changement bu ñu ko xaar parce que le changement c'est un nous le changement c'est nous bu ñu tàyyi ci waxtaan ak nit ñi parce que il faut ñu am benn éveil des consciences il faut ñu sensibiliser nit ñi davantage parce que bu ngeen xoolee ñaari millions ci sénégalais ñoo comprendre ne beneen Sénégal war naa am. regardez une zone comme la langue de Barbarie à Saint-Louis avec tout ce qu'ils ont comme difficulté tout ce qu'ils comme lot de morts ils ont choisi. la continuité nga dem Kaffrine nga xam ne la muy yaatu yaatu yaatu benn tali dong moo fa nekk ak jafe-jafe la région la plus pauvre du Sénégal ñooñu dañu choisir la continuité njuñ amuñu ndox mu ñu naan ils ont choisi la continuité la zone de mbooro jogo Daaru Xuddoos dañ lay wax suñu doom yi liggéey ci usine bi suñu suuf yi dañu ko jël ndox mu ñu naan amuñu ko ils ont choisi la continuité nga dem dans le Médina Yoro Foulah idem amuñu un centimètre de goudron depuis presque cinquante neuf ans ñooñu ils ont choisi la continuité vous venez à Dakar c'est la plus grande concentration d'intellectuels fii la misère nekkee fii la jafe-jafe nekkee fii la ñuy ñaan taw fii la ñuy ñaan tout taw mais Dakar a choisi également la continuité parce que ñoom ñi yore réew mi ñoo jiitu fii ci Dakar li département bu Mbacké def département Ziguinchor def ko département bu cees def ko bu ko Sénégal yëpp defoon xëy na coow bi mun naa bañ a bari kon dafay tekki tout simplement que peuple le plus gros du temps dafay amnésique mais bu ñu baisser les bras de de sensibiliser continuons d'éveiller les consciences parce que nag lenn rek moom moo ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal googu il faut ñu ñëpp ñu àndandoo liggéey ko kon donc l'heure est au travail pendant un an on a sillonné le Sénégal nous avons fait cent mille kilomètres nous avons visité plus de trois mille localités au Sénégal tey nag jot na ñu dellu ci liggéey ñu liggéey pour suñu réew liggéey pour suñu njaboot liggéey pour les générations futures en tout cas je voulais remercier du fond du cœur kenn ku nekk ci yéen ci gëm sa bopp bëggoon naa tudd turu kenn ku nekk ci yéen jox kenn ku nekk ci yéen loxo wanne leen man Bougane yéen waa gëm sa bopp maa leen ameel njukkal maa leen ameeluk cant parce que yéen li leen waroon yépp def ngeen ko li des nag mu ngi suñu kanam kon liggéey bi mu ngi ci suñu kanam avenir bi nañu ko waajal nañu jóg continuer liggéey bi ngir Sénégal bu gën ngir Sénégal bu baax ngir Sénégal bu jag ngir Sénégal boo xam ne suñu njaboot ak suñuy doom danañ ci nekk sénégalais yi mu ne vivre dans la dignité et dans la décence vive le Sénégal vive gëm sa bopp maa ngi leen di sant bu baax jërë ngeen jëf.